li nekk ci biiram a bari. Ah. Hmm. waaw. bu àddu xam nga maanaam li ngay njëkk a seet mooy. Hmm, hmm. sonkoo kan la gën a taxool ci Sénégal. ci ci ki Touba gi daanaka rek. sëriñ Cheikh Saliou. macha allah Antoine Diome kan mooy sëriñam sëñ Cheikh sëñ Cheikh Saliou. defe naa Moussa Fall sëñ Cheikh Saliou ay Serigne defe naa su ma juumul. ay ñoom euh, euh, nu mu euh, ay Lat Diop. Hmm? waaw. Uh, ñu bari ak Samuel Sarr. ministre yu bari waaw. waaw léegi kooku noonu nga xam ne dafa am sonk nii am Antoine nii am kii am kii am kii kooku bu leen xoolut bëtub taalibe rek nan lay àndeek ñoom. dëgg la dëgg la. Hmm? loolu mooy wane ne kon bu leen xoolul bët bëtub taalibe bi ñu séq nga xam ne hmm. bi ñuy ñëw sol seen dàll sëñ tubaa fi indi. day fexe ba sëñ tubaa lañ fiy fekk rek. sëñ Cheikh nee na. loolu mooy position sëñ sëñ Cheikh wax na nit ne ko. Hmm. man usmaan Sonko bu ma ko bëggoon jàppale ci politique it xaw ma nu ma ko ci jàppale ndax musuma wax na day politique wala mu wax ma waxi politique. macha allah bu fi ñëwee diine ak sëñ Touba ko fi indi ci loolu lay wax ba mu dem. Hmm. Hmm. nit it ñëw na fa di ki jóge ci état bi tudd ko fa mu ne ko bu ko fi tuddati ndax musta toog fii ba tudd nit. tubarkalla. dégg nga. yooyu yëpp boo ko boolee mooy kon sëñ Cheikh bu fekkee yow sonk dalaa yaakaar. ci digganteem ak yàlla ak mm. sëñ tubaa mm. Antoine yaakaar la ci digganteem ak yàlla ak sëñ tubaa mm. Ismaïla Madior yaakaar la diw yaakaar la te ñoom ñëpp maanaam bu ñu demee ndakaaru ñooy poñente <laughs> maanaam bu fekkee da nga cee sol dàllu faral kenn waa léegi ñi ci des noo leen di def danga yaa ngi leen xañ seen àq ci sëñ tubaa dégg nga d'accord yooyu yëpp def ceen nekk d'accord yoo xam ne da dul am occasion sax te waxtaan wi waajuma ko woon. dama <laughs> <laughs> damaa romb rek daal di yëg. d'accord waaye daal yii yëpp boo ko boolee di ko teg di ko teqantal. maanaam da ngay comprendre luñ jàngatut la. Hmm. ak luñ jëlee noo xam ne këfinut. waaye mbir yi maanaam mbir yu leer la dafa fekk nag man indépendance bi ma am ci sama bopp. ndax man sama caaya rek laa sol nekk ndakaaru di wër responsabilité yi ma mën a jël maanaam ki ma ëpp responsabilité wala ki nga xam ne dafa moom boo waxee yoonu murit moo wax. bu engagé woo yoonu murit moo engagé wu defe naa ne kooku tamit boo ko dee xaar muy jël même responsabilité yi may jël tamit du noonu. Hmm, macha allah dafa am loo xam ne man mën naa ko wax mu jig ma mën naa ko def mu jig ma. Hmm. waaye tey am na koo xam ne bu nee ŋaang moom ŋaangut yoonu murit a hmm. yoonu murit ŋaangut sëñ Tuubaa moo ŋaang. waaw jërëjëf loolu mooy tax kon nit ñi nañ nañuy bàyyi xel yooyu. te jéem a comprendre sëriñ si. waaw xam na tamit dëgg dëgg dëgg li ñu boole nag. du ay régler ay problème politique. dégg nga mhm. du régler problème euh, social mhm. ndax jàpp naa ne doo dem nit ñi ñëpp kenn du ci dem kër sëriñ ma naan ko may ma lu ma dépassoo wala may ma facture courant wala may ma nangam li ñu leen toppee xam nañ ko mhm. xam nañ ko muy sëñ tubaa la dëgg la moom la wër di ko wër ba agsi ci ñoom fii léegi sëñ tubaa moomu ñu ngi koy amee ci ñoom rek ñun wàccoo nañoo ak ñun waaw hmm. beneen point bi xam ne ñu def ci am na loo xam ne dinaa ko wax ndax sëñ Bas mas na ma ko wax publiquement hmm. da may baal na nag yii nii dafay jafe ma koy waxtaane wax feneen waaw mën nga dikk waaw sëriñ Bas daf maa wax ne hmm. ku fi ñëw fii ci kër gi ak ku mën a doon te ci booba caméra yaa ngi taxaw mu ne danaa la wax sëñ Tuubaa mi la fi indi ak lislaam ji la fi indi waaye amul nit ku ma mës a wéetal wala ñu toog ci publique ma ne la jàppal kii ci politique wala bàyyil kii ci politique musuma koo def te duma ko def. waaye tey par exemple xeex xeex opposition bi tey. Hmm. bu bu bu bu fekkoon kay sëriñ si ci lañ nekk am na lu gën a gaaw. mu hmm. ñun ñii yëngal fii yëpp njabootu sëriñ si lañ kenn ku ne bu la sab sëriñ woon ci ruqo hmm. maanaam xar tànk tubéyam ci nga noppi mbir mi dana gën a jafe ci dana gën a jafe waaye man de ni may ni ma bëgg a doxe ci sëñ Moustapha laa jógee nii fa laa yendu jóge fa añandoog soxna may ñëw naa ne si café ngoon kër sëñ Abdou Samad ñëw fii kenn ku ci nekk da nga ma tooñ ana sa waa sonk Sonko wala wala doo ci wax rek. Hmm. waaye jàppal lii bàyyi lii waxeel nii dugguñu ci. sëñ Tuubaa mi ñu séq daal moom bu dee benn minute danañ ma ko wax. Hmm. waaw. waaw te nag bu ñu xaroon seen tànk tubéy. Hmm. ki ne ñi ñi wax ci dëkk bi wala ñi nekk député wala ñi nekk ci politique te nekk ci dëkk bi moom danañ leen orienté ba ñu nekk ci génn buum su boobaa dana metti ci ñun lool. waaw waaye nag bàyyi gi ñu bàyyi rek kenn ko ne féete fa nga bëgg a rek. maanaam loolu rek xàddul la. kon ñi nekk ci opposition bi tamit nañ ko bàyyee xel noonu mm-hmm. waaw xam ne nit bu nangoo bàyyi njabootam mm-hmm. mu ànd ak yow te nëbb ko laqu ko man bi ma toog ak sama sëriñ léegi bracelet baa ngi nii waaw amut amut ku ma ci toogal ci sëñ Basak sëñ Muntaxa ku ma mën a toogal lii ma takk dindiwuma ko ndax li ma ne defe naa ni ñépp ko xam nëbbuma ko kenn suñ ko bëggoon na nag suñ maanaam ànd gi ñu ci ànd ak man ma di ko def rek mm-hmm. loolu kay doy na doy na waaw ngoog <laughs> jërëjëf point point bi nga xam ne aussi moo ciy topp peut-être mooy euh, actualité bi am fi mu toll nii tembeeku ñëpp xam nañ ko président Sall ote na dialogue altine talaata